jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki bitim réew mbokk yi maa ngi leen di ziar di leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Bawol Info TV rawatina sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di ñu déglu ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax mbokk yi nag tey di àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet atum 2023 maanaam vendredi 28 juillet 2023 euh, tey jii ma leen di nuyu di leen di ziar Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi ci chaîne YouTube bi di Bawal Info TV amaana tamit am na ñu ñuy déglu ci page Facebook bi Euh, page Facebook bi Bawal Info TV la aussi maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax euh, bis bi nga xam ne tamit mooy tamxarit ñuy ñaan yàlla defal senegal jàmm defal àddina bi yépp jàmm yàlla nangu ñaan yépp mbokk yi di masawu ñi nga xam ne seeni mbokk faatu nañ ci géej gi ndax xam ngeen ne fan yi ñu génn géej gi xale yu bare bare bare bari faatu nañ ci géej gi ñuy massawu seeni njaboot di leen di ñaanal yàlla yàlla suñ boroom sotti yërmande ci seen kaw xale yi nga xam ne ñooy dem ci géej gi nag kero am na benn kilifa bu ko wax ne xale yi nañu toog ci dëkk bi góor euh, góorgóorlu am yéene wane ab taxawaay ci seen réew xam ne bu ñu wanee taxawaay ci seenub réew ñafe ko ci biir réew mi liñ leen di teg te waruñu leen koo teg ñu lànk ko ni ñuy doxalee seenum réew te waruñu ko doxalee noonu ñu taxaw lànk ko ci réew mi bu ko defee Sénégal mën naa dem ba ñépp gis ci seen bopp ndax euh, du ñu encouragé kenn mu dugg ci gaal gi waaye ñu bare bare bare bari dem ba amatuñu yaakaar ci réew mi moo tax am na ñuy wax ne am na parents yoo xam ne ñooy jox seen doom yi xaalis am ñuy wax naan pression sociale bi maanaam da ngay dëkk ak say parents ñu naan la doomu diw tekki na yow góor woo loolu mooy pression sociale bi ñenn ñi jàpp ne pression sociale boobu mooy tax euh, seen doom yi euh, dem ba mën a def yenn yi ngir mel ni doomu diw te am na loo xam ne nag wërsëg la te am na loo xam ne yàlla moo koy moo koy joxe muy wërsëg ndax am na ñoo xam ne bi ñu dundee ba ni ñu faatoo dañuy doon góorgóorlu di liggéey waaye lii moo la yàlla def mu nekk seen wërsëg loolu tamit il faut ñu koy bàyyi xel bien vrai yàlla liggéey jaamu yàlla la wax liggéey jaamu yàlla euh, ñi nga beneen mbir mi am na ñuy wax ne am na ñoo xam ne seen yaay yi ñoo leen di jox pour ñu jël gaal yi loolu même su dee am na ay benn benn la pression sociale bi même su dee am na ay benn benn la bu dee am na ñoo xam ne dañuy tëj seen place dem ci gaal yi même bu dee am na ay benn benn la mais li ma jàpp lu ci ëpp mooy ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñuy dund loo xam ne mettit la ndax ndax fii ci senegal ngay gis ndaw boo xam ne mën naa liggéey ñaar fukki at soo ko fëggee du la génneel cinq cent mille francs moo xam transporteur bi la moo xam pêcheur bi la moo xam tailleur bi la moo xam mécanicien bi la moo xam ñi liggéey sax ci entreprise yi moo tax Sénégal ñu bari ñoo ngi liggéey di góor góorlu waaye àq bi ñu war a jox liggéeykat joxuñu ko ci Sénégal taxawaay bi état wara taxaw pour nit ñi gis seen bopp ci réew mi taxawaay boobu état amu ko waaye tamit xalaat bi état war a teg xalaat bu méngoo ak waa réew mi xalaat bu méngoo ak li waa réew mi bëgg xalaat boobu état doxu doxalu ko beneen mi doxalin wi ñu war a doxalee alalu réew mi ba ñépp gis ci seen bopp doxin woowu tamit gis nañ ne état doxul ci dox boobu maanaam li nga xam ne tey moo indi jafe-jafe yi ci réew mi dafa bëri xam naa dinañ ci ñëw maanaam réew mi ëpp ci di jaale tamit mbokk yi euh, ñi nga xam ne ñoo faatu ci accident yi weesu di leen di ñaanal yàlla suñ borom sotti yërmande ci seen kaw euh, ñi faatu ñi blessé aussi dégg naa état bi ne dina leen jël en charge mooy bàyyi ba jànteem nga topp sa watis wa di dóor ndax lu xew ci réew mi rek mën nañoo wax ne à quatre-vingt-dix-neuf pour responsabilité état la boo ko càmbaree xool ko ba ca biir waaye comme nee na état bi ne dañ leen jël en charge alhamdulilah ndax accident euh, ñiy blessé parfois dañ leen di seetaan te amaana am na si ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te accident ñi blessé dañuy am léeg-léeg ay cër yu daj cër yu dagg maanaam nit ki bu jógee ci accident rek maanaam dootul matati nit ñenn ñu dootuñu matati nit lañu mënoon dootuñu ko manati maanaam ñooñu état daf leen war a bàyyi xel état bu Sénégal maanaam warul yam rek ci ci jël leen en charge warul yam rek ci jël leen en charge mais bu dee ñi nga xam ne ñoom la ñuy dugal ci kaso bi jekk-jekk tey leen fay at na leen defu leen dara bu dee ñooñu la état bi du indemniser fay leen taxawu leen dugalaat leen ci société bi asama ñi blessé si accident yi ndax dégg ngeen ñu baree baree bare ñoo xam ne dañuy génn ci kaso bi euh, dañ leen di seetaan après ñu dem te ñooñu ci societé bi lañu bokk may nuyu ñu nekk ci prison yépp di leen di ñaanal yàlla dafa leen tawféex blessé yi bare après accident blessé yi dafay metti te état dafa war a am lu manal ay doomu réewam maanaam Sénégal lan la état defal ay doomu réewam lan la état defal ay doomu réewam euh, mu nekk loo xam ne euh, lu doy waar la accident euh, boobu nga xam ne sax moo xew ci Louga dégg naa benn journaliste Euh, ku ñuy wax bint jàlloo mu wax ba tuddu concert de casserole yi Ousmane Sonko woote woon xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne réew mu doy waar la ñu bari dañ leen di woowee ay intellectuel ñu bari ñu leen di jox kàddu waaye bu ñu waxee rekk nga xeeb leen te intellectuel sax waxuma sax bint Diallo même ba ci euh, ma jambal jaañ ak livre bi mu génne mais Sénégal dañu tàmm ñaari baat ñetti ñu ne ay intellectuel ay intellectuel lan mooy intellectuel mais ki nga xam ne tey bu leen neexee ñoom ñu firee ko nu leen neex mais ki jóge Bawal kii jóge Saalum kii jóge Kajoor kii jigéen njàmbur amaana amul benn diplôme mais dafa commencé liggéey ci ci junni ci ñaari junni di si liggéey di si góorlu ba def koy milliard ubbi ay entreprise di liggéeyal ñoo xam ne jàng nañ ma yor seeni diplôme ñu tuddee leen ay intellectuel mais moom mi liggéeyloo ay intellectuel moom nan lañ ko war a tuddee moom kooku moom nan lañ ko war a nan lañ ko war a tuddee bu dee kooku moom rawul sax nekk intellectuel mais fii ci Sénégal am na ñoo xam ne jàng nañu bu ñu yëkkatee seen kàddu nga xeeb leen xam nga concert de casserole am na loo xam ne sax ak ñàkk gëm yàlla la wala ak bokkaale la am na loo xam ne ak soxor la am na loo xam ne ak tooñ la am na loo xam ne ak mbañeel la am na loo xam ne tam nit ki dëmm la ngeen baal ma ci kàddu gi te tooñ baaxul te tooñ bala nga xam ne baaxul wala sosal nit ki wala fenal nit ki ñu sosal la walla ñu fenal la tey bint jàlloo am na beneen waxin boo xam ne moom la waroon a wax lu dul concert de casserole mais c'est pas la première fois ma dégg muy wax ci Ousmane sonk ndax dafay am ñoo xam ne bu ñuy wax ci nit dangay xam ne ñii dañoo bañ nit kii bañoom ñoom duñu contrôler sax ci li ñuy wax tey par exemple euh, Pape Alé ma koy nuyu di ko ziyaar di rafetlu taxawaayam mais ku ko seetaan boo gàttee xel danga naan kii dafa bañ Macky Sall mais bañul Macky bañul Macky Sall ndax Macky lañ ko dink alalu réew mi Pape Alé waa réew mi di ko déglu mu ne man journaliste laa mu ne man lii mooy sama rôle leeral askan wi ni ñu yore seen réew ni ñu yore seen alal ni ñu yore seen mbay ni ñu yoree seen napp ni ñu yore seen sàmm ni ñu yore seen njàng ni ñu yore seen wàllu wér-gi-yaram Pape Alé ne dinaa leen ko saytul ndax lii lépp yéen ko dénk nit man may journaliste war a taxaw ci digg bi lu ci lëndëm ma ne leen dafa lëndëm kuñ jàpp ne dafa luubal mu ne diw dafa luubal loolu mooy rôlu journaliste journaliste yitteem dëgg mooy ki ñépp jël li ñu moom ñun ñépp dénk ko kenn nit na ko alalu réew maa ngi nii budget plus de six mille milliards yaa ngi nii big baa ngi nii del nommé civil ba militaire journaliste rolam war a xippi ay bëtam xool ci teg ko ci waa jooju journaliste warta am jot journaliste maanaam vingt quatre heures yi maanaam vingt trois heures trente yépp journaliste bi bëtam daf ko war a teg ci ki ñu dénk alalu réew mi maanaam trente minutes yi rek wala une heure de temps maanaam ci euh, journée bi la journaliste war a teg bëtam ci opposition bi ñoom lan la ñuy proposer ak lan mooy seen doxalin mais rôlu journaliste mooy xam nga assemblée dañu ne mooy contrôler l'action du gouvernement maanaam saytu gouvernement bi saytu xool li ñuy liggéey journaliste aussi mooy saytu ki ñu dénk alalu réew mi nan la yore alalu réew mi ministre yi directeur yi lan la rapport corps de contrôle yi wax loolu journaliste mooy càmbar xam nga tey Pape mun munta ñëw ne munta ñëw ne yow Ousmane Sonko euh, yow Thierno Alassane Sall yow Bougane Gueye Dany teg leen alalu réew mi ci yoon mais ñooñu kenn dénku leen réew ñooñu kenn dénku leen euh, kenn dénku leen réew mi président Macky Sall lañ dénk réew mi euh, Binta jàllo mu balma ci li may tudd turam mais dafa am lu ñuy xaar ci journaliste tey Ousmane sonk lii muy xeex ak Guy mari Sagna lii muy xeex mais Guy Marius Sagna buy xeex naan ceeb bi dafa cher diw gi dafa cher courant bi dafa cher mbay mi baaxul santé gi baaxul mais du soxna Guy Marius Sagna rek mooy dem ci hôpital bi du soxnaam rek mooy dem ci marché bi du Guy Marius Sagna rek mooy jënd courant yéen ñi ànd ak APR yéen ñi ànd ak Macky yéen ñi ànd ak Sonko yéen ñi ànd ak diw yéen ñi politikul yéen ñépp war ngeen retrouver wu ci discours gi mari Sagna boobu ndax ndax seen soxna yi dañuy dem ci marché bi te yéen ñëpp xam ngeen ne marché bi dara yombu fa fi mu ne kero rek damaa dem ci marché bi bi ma laajee euh, màggalu Sëñ Abdou Khadre gi maa demal sama bopp ci marché bi kilo carotte bi mën a carotte lu muy jar ñu ne ma kilo bi ma ci mille deux cent mille trois cent dama leen jox exemple rek ci carotte mais lépp lépp yokk lépp cher mais ñooñu taxaw di kaas naan hôpital bi faju gi baaxut mais yéen ñi nga xam ne yéen a contre Guy Marius Sagna contre Ousmane Sonko mais yéen seen soxna yi dañuy dem ci hôpital yi te yéen xam ngeen ne faju gi dafa cher. yéen xam ngeen ne tali yi tali yu si bari baaxuñu te tali yi du opposition bi rek ñoo siy jaar bu nit taxawee ne tali yi baaxut diw dara ba lii baaxul lii baaxul lii baaxul mais kooku soo ko encouragé wul waroo xas waroo ko saaga ndax tey Binta Diallo liñ doon xaar ci moom mu ne accident yi. respo responsabilité état la chauffeur bi nag mën a see am part de responsabilité mais tuuti la même clients yi sax mën nañ ci am part de responsabilité mais tuuti lay doon ndax amaana clients yi bu ñu leen surchargé bu leen mënoon nañoo taxaw ne du ngeen ñu surcharge bu compatibilité amoon gis-gis yi bokk ci clients yi dañ ne du ngeen ñu surcharge client yi bu chauffeur bi daw lu ko lu mu warta daw mën nañoo taxaw na ko doo daw lu warta daw wala bu taxawee ci poste contrôle client yépp wàcc wax ak takk der bi nekk ci poste contrôle bi parce que loolu mooy seen responsabilité ci mbir moom mais Binta Diallo dafa waroon a taxaw wax responsabilité état mais oto bi fu mu jugee surcharge oto bu war a def soixante personnes def soixante seize personnes ñaata poste contrôle la romb poste contrôle yooyu ministre de l'intérieur mooy seen patron kon li mu waroon a wax mooy ministre de l'intérieur ak ministre des transport dañu waroon a démissionné ndax ñoom accident dafa am cyclo ñu ne dañuy jël ay mesures accident amaat sàkkal ñu ne mesures yi ñu demaat accident amaat kon ñoom mesures yi ñu jëloon xanaa baaxul kon ñooñu dañoo lajj ci état bu normal ci république bu normal waro ministre des transport waroon a démissionné te kenn du ko wax waroon na tekki ndomal tànkam te kenn du ko wax ndax day wax ne accident am na jël naa mesure mesure yi amul efficacité damay tekk sama ndomal tànk sama xam-xam jeex na moom ministre des transports ministre de l'intérieur bu taxawee di wax mais war na si wax lan mooy responsabilité am te 23 points yi 23 mesures yi ñu doon wax mesure bu nekk war naa am lan mooy nekk contravention bi maanaam mesure bu nekk lan moo koy sanctionné maanaam mesure bu nekk loo jalgati ban daan moo war a tegu euh, moo war a tegu ci sa ndodd te booy jël ay mesure bul jekk-jekk rek euh, maanaam kilifa du dox ci ay émotion dégg teel rek na damm na xew-xew am rek nga jóg xëbër xëbër kilifa du xëbër xëbëri dangay toog dal te booy jël mesure dangay dangay woo moo tax gouvernement bu Sénégal dañuy jël ay mesures yoo xam ne du am benn efficacité après du jël benn du jur benn résultat ndax buñ koy jël sax acteurs yi ñu si war a boole duñ leen si boole acteurs yi nga xam ne moom lañ si war a boole du ñu leen si boole même bu doon si éducation sax même si euh, transport bi mais boo jëlee ay mesures nga dem lu mat trois mois six mois nga taxaw ne mën naa évaluer mesures yi ma jëloon est-ce que mesures yi ma jëloon baax na est-ce que mesures yi ñoo ngi koy respecté am na mesures yoo xam ne état mënu koo jël daar daar mais yiñ jël daar daar fan la toll ndax ñoo ngi koy ndax nga def évaluation bi mooy chaque jour li ñuy wax ci inondation yi ay milliards yi milliards est-ce que ñoo ngi def évaluation bala ngaa jël yeneen yeneen mesure tey CREI bii comme par exemple tey CREI bii ñu fi bëgg a jëlee mais CREI waroon nañoo def évaluation leeral Sénégalais yi ci CREI mais ba léegi leeraluñ Sénégalais yi waroon nañoo wax CREI lii la liggéey kër yi ñii ñëw delloo seen xaalis kër yi lii kër yi lii kër yi lii leeralal Sénégal yi mais na ñëw kër yi jekk-jekk supprimer kër yi indi leneen boo fi fekkee dara boo ko fi bëggee jële da ngay expliquer Sénégal yi lu tax nga bëgg ko fee jële ak li fi indi lan la état noonu lay doxe mais jóg taxaw ne concert de casserole yi moo waral accident yeeg sonk mi sol lu xonq loolu tooñ la loolu mbañeel la te am na loo xam ne euh, mais am na ñoo xam ne bu ñu waxee rek nga xam ne euh, ñi seen bopp yi ñu baal ma mais day mel ni kupp kupp moo ci nekk kupp euh, tey ku si mel ni ma jàmbal bind na ab livre livre bi li ma jot a gis ci extraits yi si génn presque mooy li muy bind ci les chroniques ma Madiambal ndax ma jàmbal Diagne li ma wax ci Binta Diallo buy wax ci Sonko da ngay sentir ak mbañeel te loolu baaxul loolu aussi baaxul may mun a ndur fay day def émission mais presque émission bi yépp Sonko la di ko chargé di chargé Sonko te éviter nit muy chargé ma jambal jaañ presque chaque jour di chargé sonk mais euh, nit boo koy chargé di ko attaqué di ko song nga gis ne yaa ngi koy attaqué yaa ngi koy song mais amul jeexital mais yow sa sa bëgg-bëgg atteindre ko mais da nga échec da échec Sonko dafa am ñu bëri ñu lajj ci sonk ay chroniqueur yu lajj ay analyste politique yu si lajj ay homme politique yu si lajj ndax attaqué nit diabolisé nit yàq nit bu doon tey euh, ñi koy def ci sonk réussir nañ kon Sonko kenn du ko tuddati mais yéen nit ki bu dee yaa ngi koy xëy ci moom loo xalaat si lu ñaaw nga wax ko loo xalaat si lu bon nga wax ko ci moom te yow xam nga ne moom politiquement mi ngi gën di yokk tey la ko nit ñi gën a bëgg Sonko bi ñu ko defee bolokis popularité ci la gën a yokk état bi créé nammeel digganteem ak askan bi politiquement état bi mooy campagnal Ousmane Sonko ndax yow nit ki Ousmane Sonko dañ doon wax li muy wax dafa bëri li muy génn dafa bëri yow nee nga ko noppalul sa kër créé nga nammeel digganteem ak ñi ko bëgg beneen bi ñu bari ñeewantal daf ci am ñu bari gis na lii ak jaay doole la sonk bi muy def un million de vues France 24 boobu ma ngi ci këram munta génn te ñi mën a génn dox seen yitte ci réew mi ak ci bitim réew mënuñoo def cent mille vues France 24 kon nga xam ne am na loo xam ne mbir yàlla la nangu ko. dara nekku ci Sonko bi muy bi ñu koy def blocus nombre d'abonnés yi ak buy def live ñu koy suivre bi ñu ko defee blocus bu ngeen ko xoolee si la ëpp kon moo tax état bi ñoom euh, ñooy campagnal ki nga xam ne tey moom mooy euh, mooy Ousmane Sonko foo ñu xam ne Ousmane Sonko sénégalais la te ñun ñépp ku waxal yàlla xam nga ne liñ koy teg dafa metti te kenn bëggul ñu teg ko sa mbokk Ousmane Sonko du malien du ivoirien du italien du chinois sénégalais la ñi ko bëgg ay sénégalais lañ duñu ay gabonais duñu ay burkinabé ay sénégalais lañ ñoo ko bëgg Sonko dafa taxaw ñëw na ñii ni ñu yore seen alal baaxul ñii dañuy saax-saaxee seen alal ñii dañuy luubal seen alal ñii seen gis-gis soriwul ñi ko gëm gëm ko topp ko si loolu mu am lu leen usmaan Sonko jaral ndax Ousmane Sonko soo ko politiciens yi bëggee nattee ci buñ ko bëggee nattee ci comme yeneen politiciens yi njuumte day am Ousmane Sonko ni muy politiquer ak ni ñeneen ñi politiquer bokkul maslaawul ci politique bi xam nga ñeneen ñi boo leen dégloo ay Barthélémy Dias ñoom dañuy jàpp ne politique dafay toll foo xam ne war ngaa négocier war ngaa yoxomal ñoom sax ñu bari dañuy wax ne Ousmane Sonko du homme politique maanaam du politicien daal comme ni ñu koy wax du politicien ndax Sénégal dañoo jàpp ne politique politicien bi mooy ki nga xam ne day day diil. day diil pour falo ñii ànd ak Ousmane Sonko ñu si bëri duñu ay militant dunduñu politique mais am nañu yaakaar ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nangu see def seen alal nangu see def seen temps te loolu c'est pas gratuit te Sénégal yi ma gis tey ñi nekk ci diaspora bi mais ñi nekk ci diaspora bi ñu si bari ànduñoo nguur. mais ñooñu bañuñu Macky sàll bañuñu Macky Sall contre ñu Macky Sall waaye dañoo àndul ci ni Macky Sall yi doxalee réew mi c'est loolu mooy problème senegal nit ñi da ngay bañ ànd ci ni mu yore réew bi ñu jàpp ne da koo bañ mais ñu nekk ci diaspora bi ñoom mënoon nañoo toog jàpp seen njàmbur ñu ëpp si ñoom ndax am na ñu ëpp ci ñoom yàllaa ngi leen di suturaal. mais bu ngeen gisee ñoom ñuy woote ci rajo yi di wax ci internet bi di wax ak a bàyyi mooy dañoo nekk ci réewu jaambur gis fa loo xam ne doomi réew moomu ñoo ko fa def ñu bëgg mu am seen réew te ñu xam ne kenn du déplacé wu di leen ko defal ku du doomi réew mi ñoom ñu gis ne réew yañ nekk ñoo ngi nañuy yore alalu réew moomu waa réew ma ñoom ñu gis yooyu yépp bëgg doxalin moo tax ñoom bu ñu déggee détournement ci réew mi ñoom dañuy am lu leen metti ndax tey Sénégal ngay dégg détournement ay luubal ku ñuy tuumaal quatre-vingt-quatorze milliards waaye te ñoom te te ñoom dañuy xam ne réew yi nekk kuñ fa tuumaal xaalis lu mu gën a ndaw yoon mën naa dal ci sa kaw ñoom ñu gis na loolu amul ci sunu réew loolu moo tax ñu nekk ci diaspora bi dañuy am euh, dañuy am loo xam ne euh, lu leen euh, lu leen naqari la te tey man senegal yi leer na ma ne même bu doon Ousmane Sonko yàlla indi ci bopp réew mi yàlla na ko yàlla may bu boobaa. li mu wax lépp ak lim mébét yàlla jàppale ko si mu jëfe ko moom ñi mu àndal waxuma la moom waaye bis bu yoon réew ñi mu àndal am na doxalin woo xam ne buñ ko doxalee sax ngeen gis Sénégal yi réagir ndax Sénégal yi nag kenn moomu leen ndax Ousmane Sonko bi ñuy bi mu nekkee Ziguinchor exemple dafa def vidéo ne xale yi ndaje mi waa F24 di daje bu leen fa yooxaloo kenn ànd leen ak dal yéen samay sympathisant ak yéen samay militant Sonko ba mu defee vidéo wax ko ñu xëy rassemblement am place de l'Obélisque Colobane mais ndaw ña fa nekkoon doon yuuxaloo Pape Djibril Fall ak Khalifa Sall mais ndaw ñooñu dégg nañ la Ousmane Sonko wax waaye ànduñu ci li Ousmane Sonko wax maanaam pour vous diir que ne ndaw ñi xàmmee nañ ràññee nañ ndax ñoom dañoo am lu leen naqari ci xalifa Sall ak ci Pape Djibril Fall ndax amaana am na si ñoo xam ne bis ñëw na jàppale nañ Pape Djibril Fall wala défendre nañ Pape Djibril Fall moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam fu man di doon ndax si ñoom am na si ñoo xam ne jàpp nañ ne bis ñëw na taxaw nañ Khalifa Sall defendre nañ ko ci lii wala nangam ñooñu bu ñu gisee ne xalifa ak Pape Djibril Fall doxalee nañ noo xamante ne ñoom ànduñu si mënuñu ko fajee lu dul ñu yoo xoloo leen pour jox leen exemple que ne ñi ànd ak Ousmane Sonko am na si ñoo xam ne ànduñoo moom pour ànd ak moom dañoo ànd ak moom xippi seeni bët am yaakaar ne bu lii yéen metti ci réew mi bu ñëwee mën na ko mën na ko euh, mën na ko saafara euh, leneen li nga xam ne aussi bëgg nañ ko euh, bëgg nañ ko wax mooy ci accident yi ak pëcc xoo bi am ci transport bi état waroon naa mën a def ay autorail réew euh, dëkk région ak région xam ne ki jóge Dakar wala dem tàmba du bokk ay bagaasam oto ndax état bi newoon na oto marchandise ak oto transport mais Sénégal presque xàmmewoo oto oto oto oto oto marchandise ak oto nit léppay mucc pëcc oto bi yab nit ñi moo yab nen yi mooy yab géej gi moo yab salaat si mooy yab jën yi moo yab nangam nangam mais bu amoon ay oto autorail nit ki jëm Tamba nekk commerçant juge Dakar wala dem Tamba wala juge Tamba wala ñëw dakaar ay marchandise am géej jam ak sobleem ak yéppam daf koy def ci otoraay mu am mu indi ko Dakar moom mu dugg ci oto oto transport mais état bi taxawaay bi mu war a am ci transport dëgg dëgg dëgg ak gis-gis bi ak vision bi taxawaay boobu euh, gis naa ne euh, gis naa ne amul euh, li dal transport bi moo dal moo tax pëccëxoo gi may wax li dal transport bi moo dal géej gi pêche bi ndax napp gi keroog gis naa ñu ne Sénégal Mauritanie jox na Sénégal cinq cent licences de pêche mais loolu mooy gàcc Sénégal sept cent kilomètres de côte sàggane sa géej sàggane sa géej bateau étranger yi ñëw di napp ba sa côte amatul la nga soxla ci cën say doomu réew yi doon napp fañ doon yam ami jën ñëw jox mareyeur bi mu nekk chaîne ñëpp gis seen bopp sa doomu réew boobu fa doon yem pour am jën mënatu faa yem loolu day day tax sax ñu bari pêcheurs yu bari yegg fu ñu warta yegg ba amaana ngelaw mën na leen a yóbbu leneen ak leneen man see xaj mais bu ñu demee ba Sénégal di sàkku ay licence de pêche pour pour mën a napp ci waaxu Mauritanie loolu mooy euh, loolu mooy gàcc loolu mooy. toog ci jama wala or di ñaan wala di yalwaan përëm mooy li dal Kédougou may massawu askanu Kédougou ndax faneeli manifestation am na Kédougou ndax entreprise yi jóge bitim réew ñëw di def exploration ak exploitation li nga xam ne tey mooy ressource jëm si wàllum ressource naturelle or ak lu mu mën di doon ñooñu dañuy ñoom ñoom ay ay homme maanaam ay homme d'affaires la ñooñu ay businessman lañ fu seen intérêt nekk rek fa la ñuy dem ñooñu kenn mënu leen a wax dara ki ñu mën a wax dara mooy ñi leen jox autorisation jox leen ay licence de recherche ñu am sañ-sañ exploita exploration ak exploitation maanaam exploration mooy seet exploitation mooy bu ñu seetee ba gis niñ koy jëfandikoo. mais nguur gi leen jox autorisation boobu mais kooku kooku lañu war a waxal te tey ñaata milliards mooy génn Kédougou mais Sénégal Kédougou sax euh, bañ nañ ko ba bu ñuy na ngay dégg ñu naan nañ ko yóbbu kaso ba sa Kédougou maanaam wala dañ ko waroon a affecté Kédougou maanaam boo ko dégloo sax yaa ngi sentir ne Kédougou ma dafa mel ni boolewuñ ko sax ci Sénégal te Kédougou toog ci ay milliards toog ci or askan wa euh, moom la ñuy wax Guy Marius Sagna nañ ko yóbbu nañ ko Kédougou mooy euh, état bu Sénégal loolu yenul maanaa dëkk Kédougou te tumuranke te fa ngay fa nga dëkk kay ñu fay gase or or ba bu ñu la waxoon deux mille vingt deux ñaata kiloy or lañ génnee fu Kédougou da ngay waaru si yàlla wala ñaata ton ñaata ton euh, kon mu nekk loo xam ne lu doy waar la ñu war a jàppale ndawi réew mi tey napp gi yéen a ngi dégg barça wala barsàq gi comme ni ñu ko waxee sànq da ngay ne nappkat yi dañoo gisatul luñu napp moo tax ñuy dem ci géej gi mais ñi dem ci géej gi ñu si bëri ci lima jàpp duñu ay nappkat mais nappkat yee leen di yóbbu ndax bu dee benn gaal boo xam ne quatre-vingts personnes ñoo ci nekk amaana dix yi mën nañoo nekk ay pêcheurs mais kajoor kajoor yi saalum saalum yi bawol bawol yi xamuñu géej bay mën a jël ak gaal di ko génne réew mi gaal yi pêcheurs yi ñoo leen di génne réew mi pêcheurs yi ñooy jël gaal yi dugal ci bawol bawol yi saalum saalum yi kajoor kajoor yi mais bu ñu fexewoon ba pêcheurs yi nammatuñu dem bitim réew kon bawol bawol yi saalum saalum yi kajoor kajoor yi duñu am ku leen yóbbu beneen bi aussi mooy état bu Sénégal surveillance bi nga xam ne moo ci war am ñi nga xam ne ñoo dem ci géej gi te yàlla def ñu rëcc boo leen déggee ñuy nettali dangay xam ne am na benn manque de surveillance ndax dangay dégg ñu ne la ay weer lañ ko préparé joxe seen cotisation defar ak gaal jënd ay moteur jënd carburant bu bari jënd lekk bu ñu waree dem ñu leen di jël par benn di ñu leen di roñ par si gaal yu ndaw di leen di yóbbu ci gaal gu mag ñuy ran ñu leen di rappel mais ana service de renseignement xam nañ ne Kafountine Mboro eh, Kayar Saint-Louis maanaam Ndar Mbuur eh, fi nga xam ne ay lieu de départ la mais état bi na infiltré ñooñu état bi na leen infiltré ba duñ eh, ba dem mais loolu mënoon naa nekk mais mais li infiltré leen baax na mais du solution solution bi mooy fexe ba sa ndaw yu réew am yaakaar ci réew mi loolu mooy solution bi mooy jël réew mi teg ko ci yoon alalu réew bi ñu teg ko ci yoon ku ko luubal ñu teg la si yoon tey par exemple tey ki jiite ONAS Mamour jàlloo tey maanaam ci loo xam ne ci éthique ci am na loo xamante ni ngor nanguwu ko ndax Mamour jàlloo dañ ko tuumaal quatre vingt Sonko porté plainte OFNAC génn rapport ne lii Sonko wax plaignant bi ci Mamour Diallo dëgg la OFNAC bind ne nañu toppee lii lii ak lii war nañ see mën a topp Mamour Diallo jël dossier bi jébbal kilifa yi au lieu que ñu topp ko déedéet Sonko ma ko feeñal lañ continuer di ko bundu Mamour Diallo ñu dénkaat koy milliard ci wàllum assainissement loolu mooy lu doy ci Sénégal ndax keroog maa ngi gis benn journal ne quarante cinq milliards yi ONAS wax fan la quarante cinq milliards yi dugg mais loolu ab laaj la bu am solo. Mamour Diallo dem na Touba jël ay engagement ci wàllum assainissement te xam ngeen ne màggal gi léegi tey mu ñëw mais xam ngeen ne engagement yi Mamour Diallo jël xam ngeen ne ay wax la rek ay wax la rek ndax Touba moom ba Mamour Diallo jëlee engagement ñoom ñu wax la ñuy wax xam nga ne màggal gi li si des ak nawet bii un mois wala deux mois laa commencé gis ñu commencé dugg Touba naan nangam nangam. te bu tawee ñëpp gis dëkk ba nan la mel mais xaalis boobu fan lañ ko dugal loolu mooy laaj bu laaj bu am solo boo xam ne euh, bu jara laaj la